العالمين bu ñu dollee sant suñu borom bi subhanahu wa taala julli ci sangu sang yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi dellu di ziyaara ñëpp di leen bal xaq waaye di leen ballu xaq ñaan yal na yàlla dolli saxal jàmm yal na yàlla defal ñu saadate dunia defal ñu saadate oxiro di ñaanal waa groupe Sadiata mboolum soppi yi ñoo bàyyi xel fu ñoo toll waaye mu mel na di ziyaaru ñëpp di ñaan yal na yàlla teggi mbala mboolam mbas yi ci àdduna si ñi tawat yal na yàlla saafara leen mbokka ngi fële ndeysaan eh, bopp ba tëju na ndax ay problème yal na yàlla teggi lépp way mu mel ne tamit mbokk ngi fële caabi féete na ko gannaaw yal na ko yàlla woyofal te bu génne yàlla bu mu delluwaat mu ca la ko fa duggal sëga moo ko defoon nag kon mu mel na nit dina fa dugg parce que moo def nit dina fa dugg yëgul tiinul nit dina fa dugg dafa juum def yooyu yëpp nga fa moo tax ñu ne gannaaw ba ñu génn yàlla bu ñu delluwaat ca la dañ ca duggaloon sëgam ñoo ko defoon waaye mu mel na di jaajëfal ñi ñoo bàyyi xel toujours tey nag ñoo am fii benn gan koo xam ne du gan ci kër gi ndax yàgg nañoo di dégg kàddoom muy woote ci émission bi macha allah muy sayida alxaaja xadijatu Njaay waaye ñu gën koo xam ci turu mère Kéemaan nga xam ne mu ngi woote ci émission bi toujours tabarakallah di koo xam ne kii wootekat la ci diine lislaam ndax ñu ngi koy dégg fu ne ci télévision yi ci internet ci rajo yi macha allah waaye tamit di jàngalekat ndax jàngalekat may ko xam ne kii du ci école ba rek waaye foo bëgg foo gisee lu dul yoon rek nga daal di ñëw soppi tabarakallah ñu ngi koy ñaanal daawa ba mu nekkee yàlla na ko ci yàlla gën a jàppale macha allah kon mu mel na tey moom la ñu fas yéene àndal incha allah ci waxtaan wi xam naa dañu koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk yi ndax itam danañoo ànd ak moom ci parcours am tabarakallah jar jaaram ndax am na lu mu servir rew mi waye kazalik euh bitim rew nek na fa jangana ba yàlla ma sha allah ko niñ ko baye rek mu nuyo mbok yi insha allah bismillah tafaddali mashkura على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa نيو مبولم اوديتورو اكس u XFM ci fépp fuñ ma mën a dégg alhamdulillah barakallah kon mu mel na mu ngoog yaakaar na bu ngeen déggee kàddu gi rek di ngeen xam kan la macha allah kon kooku mooy euh, maire Kémane macha allah ñu fas yéene moom ci waxtaan bi di jaajëfal suñu jàmm bi Oustaz Djibi Sow am na yaakaar yàgg nga ko dégg sama jàmbee nekkee nii nag. dëgg donc sama papa it gënoon am euh, itte foofu pour ma dem ci lañ jàng nag ma xaar yoon xuruf loolu doyul mu proposé ñu ku bëgg après les cour nga def euh, <coughs> étude tawxiid kii tawxiid ak étude tajwid waaw ci laa am nag ijaada bu baax ci taw ci tajwid ba conférence ñu mësa def presque may jël prix fofu ci ci tajwid ma sha allah. légui nak yàlla def ma am BFEM fofu la amee BFEM. waaw doon nañ jàng français touti mais fofu la amee BFEM fofu la bëggee it al arabiya ndax mom ma sha allah yàlla def ma ma ay ci lool ci nahwu waye xam nga comme sunu école yi rek bu ñëk surtout xamna légui nak ñu ngi moderniser bu ñëk nak affaireu il ulum dawul nek ci programme bi mm-hmm. arab dal dinañ tauhid tawhid dinañ jang lepp dal dirasat an nahwu surtout ak lugha arabia moom moo tax dañ ci doon ay lool mais lu jëm ci ulum du won nek jang miñ ko wara jagge dal jaar na fa tamit euh, ci ba joggé fofu dem ndam suma papa murit la mu dégg ñu ne tamit euh, sëñ euh, Mourtada yàlla na ko yàlla yërëm Mbàkke mu ngi bi fa nekkoon à cette époque ndeysaan ak maître ya fa nekkoon ay monsieur mu si Dieye maa ngi fàttaliku lu ne def nañ ko ci àddina ne ko xale bii de wax dëgg yàlla gis nañ ci moom intelligence boo xam ne boo ko bàyyi woon dina nekk ku ñuy dégg ci réew mi en français mais sama yaay mosul dégg loolu bu sama papa demee rek mu génn ma bu sama papa demee rek mu génne Euh, période bi may def euh, ay CM2 yooyu sama papa daal ni kii su ma ko bàyyi njàngam bi dina yàqu xaaral ma yóbbu ko foo xam ne franco arabe la muy tafsir du baax bi nekk buntu Pikine Gazelle foofu laa defee suma CM2 ak sixième secondaire franco arabe yàlla def foofu tamit macha allah amoon benn euh, professeur bu tudd oustaz Jalal métis marocain la woon hmm. mais ni mu daan gisee bu ma joxee sax leçon boo xam ne dama ko war dama ko wara a dama kay dama kay keuru mu ne est-ce yow seigne sa way juri xam nañ capacité bi nga am ak intelligence bi buñ la dimbalé dé di nga jall malheureusement wala heureusement sax parce que fofu la jogué après sama yaay ba légui gis né français bi moy moy dominer arab bi hmm. ma dal di jaar baabu salaam ci hmm. oustad sar hmm oustaz Ndiaye sax moomu njëkkër ma gën nek nekk nak nag ma même maa ngi koy fàttali oustaz Ndiaye nekkon mitti fekk euh, ñu ngi doon ekkale suñu kër bi nekkon fi ci Canada mm-hmm. man nag ñu nekkon suñu kër maam fofu laan jàng arab après mu jëgë jënd babu salam après nak ci la dem ci oustaz Omar Sow sha allah fofu nak mom, ma ngi nuyu doomu professeur Mansour Sow le passage di suma càmmiñ di suma rak ko mom dama ko dama ko dama ko initier ci sama bop mu ñew Bude mi ngi nelaw damay dem ba ci seen nek ma yee ko sulum ko par force nako ko jang ci classe bi mm-hmm. alhamdullilah oustaz Omar saw nek ci ima jaar ci mom jaar bu am solo parce que finalement wallahi ci la gëna am eh, jang mu dëggu ci makharijul huruf ndax am kuñ doon wax eh, benn eh, turandoo aadi ture ñu wah wax aadi jéey maa ngi koy nuyu de passage parce que mos na ma woo mi ngi fii yor daara fii defe naa fii ci géejawaay maa ngi koy nuyu de passage parce que du ma du ma ko gërëm assez parce que booba dañ doon jàng njàng ashwa yi rek maanaam